lan lañ wax waw jamono da ngeen soxor ñi nga xamne ne toogaguñu sax ngeen jog dama ne chef d'état bu tok 50 ans ak ku fi tok ñaari fan la jam la yemale ah 50 ans régime bu fi tok 50 ans ak régime bo xamne amago sax ñaari fan la pourquoi mais parce que dañu leen dënk suñu suñu suñu destin ndax niko suñu baye agi Mansour tàmm di le président de la République gardien de la Constitution le président de la République Rambo c'est la clé de voûte des institutions euh, le le président du conseil supérieur de la magistrature chef d'état euh, le chef suprême des armées Momla, mais on oublie souvent la constitution oui que le président Amna Benen c'est le protecteur des arts et des lettres et par extension de nos valeurs kon nak kooku ñun buñu sukkandiko ci lolu ñun sénégalais yi fal ko am nañu droit chef d'état bu mel nonu bu poser un acte qui va à contre-courant de nos valeurs ñu yuxu Jamra da fay yuxu à visage découvert du ñu nëbbatu ak di def ay interview caché visage découvert lañ koy dénoncer kon nak président bu fi def 50 ans ak ku fi def ñaari fan lañ yémalé té ñun dañ dañ euh, jóguñu rek def ko on a été euh, équilibré bi Fallo, sur les 125 ONG islamiques du Sénégal Djamra a été la première première ONG d'une une appréciation encourageante qui premier pas yi pose. a je te maa koy répéter Jamra Facebook sur tous nos supports def déclaration yónnee ko presse mais ni jam euh, euh, euh, Bassirou Diomaye démarrer, démarré ñu ko encouragé premièrement posé un acte très fort la Jamra yàggoon di depuis le limogeage du général Lamine Sissé, Bassirou Diomaye Fay réglé na parce que ñun dañu le ministère de l'intérieur dafa de njaaxanaay kon d'accord ñu di fa teg un civil l'autre tax bi Ablaye Wade ñëwee dekkalaat na ko di nommé le général Mamadou Niang mais bi fa Mamadou Niang nous ñu ci euh, jox un civil alors lolu jomay réglé na parce que nommé le général Jean-Baptiste Tim, comme ministre de l'intérieur menace na am dana partis parti politique yépp le général Birame Diop comme ministre des forces armées muy lu cohérent parce que ay militaire militaire militaires, leen war a yilif kon loolu la ñu jëkk nous ñu ne Jamra rafetlu ci premier pas yi Diomaye posé ce financier yi di des économies d'échelle Je vais citer un exemple gouvernement yi chef d'état le ministère de la jeunesse avec un gros budget ay milliards ministère des sports ngandim budget ministère de la culture Diomaye ñëw rajaxe fusionné il a nommé un ministre de la jeunesse, des sports et de la culture. Djamra Djekubinde, Rafael Nlong. Ça nous a permis d'économiser plus de 60 milliards. qui l'ont que nous avons dit au ministre. Nous avons dit. Nous avons dit. Rafet Luna, Tahawayu, président Diomaye Faye, à l'égard des cités religieuses. ndax dindi na tuuma yu bari ñi daan wax naan faalewul sëriñ si xeexkatu tarixa la Diomaye def lu rafet ba muy seeti sëñ Muntaxa yëkkatiwul ay mbagg tànku neen la def yéen ñëpp gis ngeen ko ci régio sociaux yi ba mu demee sukkal na sëñ Muntaxa fóon ay loxoom sëñ Muntaxa tamit def geste bu rafet daal di jël de haut symbole islamique kurus ak alquranul karim jox ko ko jam la rafet wu na ko jomaay wëlbatiku fa dem Tiwaawan sëñ Babacar Sy Mansour yëkkatiwaat de grand symbole islamique sajaada ak yeneen i teraanga du plan symbolique jox ko ko Jamra def déclaration rafetlu loolu ñu ne ko na nga continuer nii te ni nga ko waxee yow Diomaye noonu la yaay seen président de waaye ñoom saa ay baay lañu te saa ay wasila lañu. ñu ne bon au plan international d'habitude chef d'état yi doog ko falu dañuy dem jébbalu ji ca tubaab ba euh, dem dem dem dégg nga ne ko falu naa Diomaye daal di dindi cette routine là ñan la jëkk seeti hors de nos Si nous sommes en Mauritanie nous frontière un espace économique parce que exploitation pétrole et gaz on est condamné de le faire ensemble Nous, la pertinent Nous rendre visite un autre voisin territorialement ci biir Sénégal la Gambie première audience de la première personnalité internationale kan la Diomaye reçu. recevoir ñu avons recevoir concours Miss lesbienne en Belgique Moi, le président du jury di Charles Michel nous sommes ah non seulement ça Charles Michel moi kan moi ka nga xam ni euh, structure yu bari, comme Jeune Afrique comme UNESCO New York Times CNN à chaque fin d'année nous créons des raaya bu ñu personnalités de l'année qui ñi ràññeeku ci wàllu politique wàllu économie gorom ñaari tuli créé nañ boss. Nous avons ko les personnalités médiatiques de l'année qui s'est le plus distingué dans la défense de la cause LGBT kan lañ ko jox Charles Michel et enfin qui Charles Michel moi ka nga xam le premier ministre homosexuel qui a fait son coming out coming out c'est mon option c'est mon nangam nga alors premier ministre de Luxembourg Xavier Bettel bi nga xamné ne bi ak faram di góor comme mom l'architecte belge Gauthier Destiné ngoroyantoom bi bimu mu yag mu tombé ak état européen yu bari di légaliser homosexualité France dal di ko légaliser le 17 mai 2013 alors ñooñu premier Luxembourg ak son phare euh, euh, belge Xavier Bettel ñu ne dañu bëgg daganal digënté bi tak sey bi fan lañu takké sey bi à la mairie du Grand Duché de Luxembourg kan lañ ko ndeyale Charles Michel waaw ngeen bëgg na ne Jamra du wax <laughs> ngeen ne Jamra du wax bañaa wax Charles Michel xajamal na lu bari lu Bassirou Diomaye Faye doon def te naqari nañu ndax ñun ci ñi doon ndamoo acte fort yi Bassirou Diomaye Faye posé si ñi ko jëkk ndamoo ñun ci lañu bok bokk. Charles Michel ñëw na tëfli ci xaar ci am nañ droit wax ne neexuñu wa ngeen bëgg jàmm waaw daawu leen wax li ci Macky Sall ba nettali naa leen fi ñuy jaar ak Abdou Diouf ak Abdoulaye Macky Sall kon fofu mom lay amatu fa. alors kon nak nous nous adressons maintenant à notre nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye encouragement il y a di encourager duñ ci dindi lu day ni tarfatal ay ni bi Jamra am ci yow pour réussir ce sacerdoce duñ ci dindi lu mais on a le droit de vous exhorter à la vigilance ndax xalé nga bañu créer créé en février 1983 ñetti at rek nga am droit conseiller la Macky Sall en 1983 Makissal qui est né en 1964 il n'avait que 22 ans ba créé Jamra en 1983 Ousmane Sonko qui est né en 1971 n'avait que 9 ans Quand am nañu droit conseil la yow mi nga xam ne ñetti at rek nga magee Jamra kon suñu conseil ma nga def preuve de la plus extrême vigilance parce que àdduna bi dafa bouleversé wu lobby LGBT yi dañu am d'Ole, doole am FMI am d'Ole, Banque mondiale am d'Ole, Union européenne te ñun suñu métier mooy gëstu. Quand Diomaye sénégalais bu ko wul réussite dafa xamul ne gal boné sa ëmb rek ngay nax nga sa ba gi mucc bu gi mucc kon ñun ñu réussir suñu la ñun nous avons le droit ak né aduna bi sous prétexte de mondialisation nous nax dëkk bari sur la base de promesses de financement daganal Ngor jigéen Gabon voté nañ loi le 26 juin 2020 quatre jours après le Sénat parce que a deux chambres la validé. sur la base de promesses de financement Union européenne la FMI la Banque mondiale nous avons vu ñoom la ñoom quest la franc-maçon lobby góor jigéen ndax nañu Centrafrique sous François Bozizé daganal nañ fa le il Maurice non Cap Vert bi sës le Sénégal non quand nous avons le devoir monsieur le président ñu ngi nekk ci ay gëstu yoo xam ne nekkoo ci ñun ñu ngi ci ñu ngi danger yi ñëw nous avons le devoir au début de votre mandat de vous alerter soit nga dégg ñu fali la am wala déggoo ñu lu xew ëllëg ñu xam ba wax jotee waxoon nañu. alors ñu bëgg a dalal sa xel nag pour terminer que ni nga defoon Touba def ko Tiwaawan bul ko di gëj di def parce que lobby buñu xamé ñu que da nga wéet ci xeex bi lañu def François Bozizé dañ la ko def François Bozizé moy kan république centrafricaine ni Macky Sall la doon def non jamais dëppawul ak suñu valeur tant que je suis là ken du légaliser Bozizé loolu la doon def lobby ne ko ah, ah parce que lobby xamoon nañ il n'est pas suivi par son peuple ah bon nga né doko légaliser on verra dal di tëj lobby yi de financement bloqué projet François Bouzé, bu Victor, deux mois trois mois am y avait pour faire salaire aux enseignants et fonctionnaires il y avait des grèves partout de bi en ébullition ñu coup d'état ko qu'il euh, bi en ébullition lan la Bouzier def mu xam c'est intenable Le lobby LGBT il ñoo rien les mu soxla mu daal di ne légalisé d'accord Il légaliser légalisé, quoi? mu légaliser ko le jacassé de bi ñu coup d'état ko mu alors parce que François Bouzizé n'était pas suivi par son peuple du temps de Macky quand Jamra disait le peuple sénégalais def bloc autour de lui Nous avons dit les corrompus là mais bon, waxuñu dit que dem jébbalu ji benn bokk autour de son refus systématique de légaliser l'homosexualité parce que Obama il na mu ne ko du ma def si suñ tuddee mu ko du def ma sur ce point précis là wax bu peuple bi def autour de lui pour weetaay bi François Bozizé nekkoon ba loolu moo moins Centrafrique ba ñu dal. suis dem na mais je répète la même chose ma ngi demandé aux Sénégalais que Bassirou Diomaye Faye amna ñortane ils partagent les mêmes valeurs religieuses, islamiques et morales que nous. bu leen ko setan mu wet parce que lobby jóg nañu Charles Michel ñëw élément la ci dé kilifa la ci nak wax naa leen c'est un grand leader un grand défenseur un grand avocat de de la de, de, de la cause LGBT te jógul rek ñew dafa jëkk a Maline Anna Borg mooy ki fi ñëwoon bëgg a jaxase suñu élection lesbienne bu bon bobulé kooko ko xàllal yoon lobby je le répète sénégalais vous bloc autour de lui waxuma dem coalitions ci coalition président avec fermeté parce que dès que opposition démocratie ça n'a rien à voir avec les considérations politiciennes mais sur la question de la préservation de nos valeurs et du refus de la légalisation de l'homosexualité les Sénégalais bloquent def bloc autour de leur président Bassirou Diomaye Diakhar Faye te loolu bu amee li li mu li li mu bëgg ko am ñun pourquoi parce que FMI yorul suñu añ suñu reer suñu Banque mondiale yorul suñu añ suñu reer suñu ndëkki Fonds monétaire yoru union européenne bu Charles Michel yoru ko kan moo yor suñu añ suñu reer suñu ndékki suñu borom wax na ki ko yor ci téeram bi nee na walillahi sama samawati wal ard les trésors des cieux et de la terre son entre mais mais man subhanahu wa taala waaye dafa am lu mu ci yokk de nee na walakinal munafiqina la yafqahuna nee na malheureusement cela les hypocrites ne peuvent pas le comprendre wasalaamualeykum wa rahmatullah